asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk yu tedd yi nii janoon ñu ngi leen di nuyu di leen ziar ñu ngi fii tey ji kër sëriñ Abdou Guèye Ridial muy ko xamee ne nii bi mooy suñu ñetteelu jataay ak moom ñu fas yéene waxtaane li nga xam ne ni moo jëm ci wàllu lasraar ndax lasaarkat dafa nekk loo xamee ni euh, xéewalu doomu aadama la waaye fi mu toll nii dem na ba mu ngi bëgg a réer ndax ñi ci dugg bari ak ñi nga xam ne ni dañ koy jéem te mënuñu ko ak ñi nga xamee li naan euh, gasum ñambi bu ñu demee ba ca yoori goj dañoo mooy ren ba waaye koo xame ne ni ñëw nga ci ki nga xamee ne ni yàlla dogal na am na xam-xam bi jot na ne doo mer te du mer looloo waral nag ñu siqiwaat ay jéego ñëw fii ndax émission yi ñu defoon ak moom ñu bari dañu koy laaj yittewoo jataay bi loo taxit ñu dellusiwaat fi war cee waxtaane yu baree baree baree bare képp koo xam ne nii nag eh, yaa ngi nekk bitim réew te am fa ay jafe-jafe ba nga am jafe-jafe ci sa wàllu wér yaram wala ci wàllu eh, wàllu këyit ak yu yu ni bel nga ñu déglu incha allah kon ñu jox sëñ Abdou Guèye mu nuyoo wa inni u'iizuhaa bika wa surriyatahaa mina seytaani rajiim rabbi a'uuzu bika min hamazaati sayaatiin wa a'uuzu bika rabbi an yahduruun li sadri wa yassir li amri wa ahlul uqdatan min lisaani yafqahu mbokk yi maa ngi leen di nuyu di leen siyaar bu baax di siyaar yéen waa Touba Argentine TV di bëgg lool ci eh, dikk gi ngeen dikk fii ngir waxtaan ak ñun ci wàllu xam-xam ñu ngi leen bu baax. tey jii bu ñu eh, bi nga xam ni moom nga moom moo ne fi yow ti muy lu mel ni xam-xamu lasraar lañ ko mën a wax eh, tey jii xam-xam boobu nan la la dikkee. ñu sant yàlla bu baax xam-xam bi moom. mën naa ne ci la ñu judd ndax mbir boo ñëwee fekk say waajur ne ci say maam sax laay wax ne ci say waajur ne ci nga judd ci kon dañuy wax ne ci nga judd waaye nag euh, doyloowu ñu itam mm, judd giñ ci judd teewul dañoo dem jàngi ko ba yàlla may ñu ci lim ñu ciy may ñu ciy defal ay nit ñu ciy gis seen bopp. mel ni ci biir alquran sunu borom mu ngi junj ne fii shifaa un linnaas kon mel na ni ci biir alxuraan mënees na cee faje loolu ndax d'accord nga ci waaw danaa ci d'accord bu wér ndax loolu yàlla moo ko wax waaw alxuraan moom euh, mooy saafara bépp tawat tawati yaram ak tawati poos nag waaw tawati yaram ak tawati poos tawati poos nag boo ma mayee mën naa koo mën naa koo leeral waaw <laughs> tawati poos mooy ki nga xam ne dafa doon liggéey moo xam mu doon commerce wala ñu jëloon ko ci barab muy liggéey wala itam mu amoon alali boppam joo xamante ne bii juba lew la mu di ci liggéey di ci sutural boppam di sutural ak njabootam yàlla def loolee commencé di seey ba mujj mu jeex kooku nag bu ñëwee ci Serigne Abdou Guèye Diall li mu koy njëkk a defal mooy dafay def li docteur yi def consultation boobu ñoom ñuy def ñun dañ koy def ci wàllu ramlu boobu nag moo nuy may ñu mën a xam nit kii rab moo ko jàpp wala dañ koo liggéey am cata ko jàpp ba tax alalam jooju tasaaroo noonu bu fekkee ne nag xool nañ ko ñett yooyu ñu xam ban la ci incha allahu rabbi bu ñu ci jëflantee rek da cay daal di gis ndam ndax loolu ñu bari xamee nañu ci léegi yaakaar naa ne loolu moom léegi amatuñ luñ ci euh, bu doon ne doon ne amatul luñ ciy wax daal ndax ñu bari xam nañ ko bu baax xanaa kay ñi xamagul moo tax ñuy wax. waaw ilmu nujoom dafa am xilmul adat am xilmul oroof <laughs> waaye yëpp ci biir asaraar lay dugg waaw euh, ramlu nag ab seet la boo xam ne ñu ngi ko wàcce woon ci yonent bu ñuy wax Idris biñ ko wàccee ci moom tamit euh, lu gudd la loo xam ne daanaka xajut ci jataay bi waaye li ci tënk daal ci yonent lañ ko wàcce woon ñun nag ñu tànn ne boobu daal kon comme ci ab yonent la wàccoon te yonent yi boo boo ci weddee benn rek mel nga ni weddi nga yëpp kon moo tax ñu jàpp boobee di ci jëflante ak doomi aadama yi waaye ci gàttal daal képp koo xam ne ñëw na ci sëñ Abdou indi tawati poche incha allah tawat ja ak lu mu yàgg-yàgg ci yow dañ ko saafara. Euh, tawati yaram yow yan ñooy sa yoo xam ne ni mooy euh, jàpp nga ni yii mën nga koo faj. xam nga tawati yaram moom euh, li ci li ciy waxkat yi ëpp lu ñuy wax mooy ay ndoxu siti hémorroïde façon yooyu te loolu ñun romb nañ ko ndax asraar tey jii nit tey jii tawati yaram tey boo ñëwoon sama kër. am fa une semaine rek man man mën nañ laa bal téeméeri tawati yaram yoo xam ne mën nga koo faj dem daal di nekk fajkat waaye loolu ñun suñu jàng ëpp na ko ndax asraar boo xoolee alxuraan daf lay jox mille cent 6666 aaya di 114 saar di jinni yow ma la wax juróom-benn fukki isib loolu moom kenn du ko werante léegi nag ñun ñu demoon jàngi asraar benn saar boo xam ne ñu ngi koy wooyee suratu saran man li ma ci xam ci ay secret ëpp na fukki fukk ak nangam te benn bokk ceeg sa moroom lu muy faj li ma xam ci faatiha ëpp na fukk ak nangam li ma xam ci beneen beneen beneen noonu kon ñun sunu si ëpp na faj tawati yaram kese donte mën nañ ko nag xale yi ñuy jàngal rek daanaka mën nañoo faj tawat yooyu loolu moom ñun li ñu gën a euh, bëgg ci nit ki mooy ki nga xam ne dafa ñàkk dafa amoon ba yàgg mu ñàkk walla mu bëgg a am ndax dangay gis tey ku nekk biti réew daf lay wax ne man tukki naa fukki at ñii ne la tukki naa juróomi at ñii ne la ba ma fi ñëwee ba tey mosuma am kayit ñii ne la boobu ba léegi ci mbedd lay fanaan ñun ñooñu lañ soxla ñu nga xam ne dañoo jaaxle koo xam ne dafa tëju wala sax am na ñoo xam ne ñu ngi am xam nga umu mooy ki mënta am dara moom la olof naan ku ubu ubaatu ubu la <laughs> ba dara mënta dugg waaye am na koo xam ne mi ngi am waaye li muy am moo bariwul te pourtant li muy am kat mën na ko ëpp ndax wërsëgam ëpp na ko ëpp na loolu waaye dafa am ay gàllankoor yu tee mu jot loolu kooku nag bu ñëwee ci ñun incha allahu rabbi am nañ fa ay secret yoo xam ne wax naa ko ba tàyyi am na ci bu ñuy def ci jaaro ñu ngi koy wax xuluubul xalaayiq bu ko defee bu dul weeru koor ñun dañuy woor ñetti fan pour liggéey jaaro boobu am na benn lu muy àndal loo xam ne euh, euh, juróom-ñaari garab la yoo xam ne garab yi duñu rak rak mooy garab goo xam ne foo ko fekk mi ngi am meññet mu tooy te it garab yu kawe lay doon yoo xam ne yu siiw la yuñ xam jaaro bi da ciy ànd beneen bi nga xam ne ñu ngi koy liggéey tamit euh, am na sangaay boo xam ne dañ koy liggéey ñu koy wooyee wallu mag su ko defee nit ki mooy xool fa nekk ci Europe wala mu xool fi na ci Sénégal mu tànn benn billet 10 mille francs dugal ko ci biir sangaay bi di ko sangoo incha allah bi bi mu ci dugal dina ko bari la ba sant yàlla xaalis am na ñoo xam ne ñoo koy wuti waaye am na ñoo xam ne xaalis leen di wuti waaw <laughs> loolu loolu <laughs> loolu benn la ci am na boo xam ne itam danu koy defar boole ko ak or ak xaalis ak ak guróog bir ak alxuraan bu mu war a àndal jox ko nit ki mu ko juróom ñetti fan di ko raayoo kooku itam dina bari xaalis ba sant yàlla xam nga xaalis du lu jafe toujours ma koy wax waaye ñu bari duñ ko mën a dégg xaalis du lu jafe yow li la war a jaaxal mooy noo def ba amoon xaalis ndax nit ki feek mi ngi dund rek am na wërsëg koo dégg ñu ne la bàyyi ko na fi rek xamal ne wërsëgam jeex na loolu mooy li wér kon kiy dund rek jafe-jafe yi nekk ci yow ba tax sa dund mënta stable loolu nga war a seet ba xam lan moo nekk ci man pour mënumaa mënumaa dund lu ko neex bu ko defee nag ci ñoon ci lool man ci laa jeexal sama gëstu pour naka la nit di def ba mën a nekk ci nekkin bu baax euh, mu mel ni kon euh, wàllu wàllu wërsëg it am na ci loo xam ne tamit mu ngi mel ni kuy toppatoo ay kayit mu të euh, loolu ndax yow di nga ci def ay ñaan ndax muy mën a gën a jàpp waaw xam nga alxuraan ñëw na ci lépp fa sawfa yu'azzabu 'azaban yasiran <laughs> kooku fi na nii am na lim boo xam ne dañ koy bind ak benn xawaatimu murabba bu muy àndal këyit wu la mën jaaxal ak lu mu dëgër dëgër dëgër dëgër ci kattanu suñu borom boo ko jëlee niñ la ko waxee yenn saa nag nit dégg benn wax euh, wala ñu yàgg koo nax ndax am bari na da ngay dégg koo xam ne man joxe naa sama xaalis ba tàyyi gisuma li ma doon ñaanal waaye ñaan dafa am aw yoon yow mi ñuy ñaanal dafa am yoon woo war a jaar ki ñaanal am yoon wu mu war a jaar ñaari yoon yooyu nag yow mi koy ñaanal boo ko wàccee moom mi ñuy ñaanal tamit wàcc ko résultat du mën a am yoon wi mooy lan ki njëkk ci ki ñaanal mooy mu sell digganteem ak boromam ba pare it li muy jàng li muy def mu xam ko ndax yàlla moom du ko du ñun yàlla du ñun nga xam ne da nga koy ñaan bu ko neexee mu may la bu ko neexee mu bañ yàlla du ñun de moom boo defee boo remplir conditions yi mu la wax li nga sàkku ci moom rek dala koy jox ndax duyu ko dara <laughs> waaw kon kayit daal képp koo xam ne am nga jafe-jafe ci wàllu kayit incha allah bu ànd ak dogal yàlla boo ñëwee dañ la jàppale incha allah. yoon waaw yoon tamit dañ koy seet ndax nit ki ni tur yi wuute nit dina ñëw ne la man dama bëgg a tukki Italie nga defal ko ab seet ne ko Italie googu nga jëm day baaxul ci yow boo demoon Espagne di muy gën ci yow. ndax loolu ni nga koy xamee rek mooy xel mu nujoom bi nga wax léegi nit ku nekk ñeent rek la ñeenti nit ñi ñoo am muy safara suuf ngelaw ak ndox tey jii ki nga xam ne rawaxaanam biddiwam dafa taxaw ci ndox bu demee ci dëkk bu amul ndox du fa mën am dara dafay sonn rek mais du fa am dara ki nga xam ne nag dafa nekk suuf bu demee ci dëkk boo xam ne ngelaw la it noonu du fa am dara noonu lay ñëwee ci soxna itam ñiy takk soxna noonu ñeenti vidéo yooyu tamit koo gis rek benn la ci yooyu bu ko ñun asraar lañ jàng asraar boo déggee ñu naan ñu leen di wooyee maaman liñ jàng bari waaw waaw loolu itam am nañ ci ay yoon yu gaaw ndax te jii ki nga xam ne dafa takk soxna moo xam mu takk nit ku weex ba pare nit ku weex ka wan ko ginnaaw Euh, ndax bu dee ci Europe bi ñaare nit ji sax sa soxna bu la meree rek daf lay génne ñoom ñoo fa ëpp baat góor ñi loolu am nañu yoon yuñ ñu leen ciy defal yoo xam ne dañuy mel ni te loolu alxuraan ñëwoon na boo euh, wa axtasimu bi xablillahi jamian wala tafaraxu jàpp leen ci bu mu yàlla gi te bu leen taqalikoo am nañ ci ay yoon yoo xam ne ñi nga xam ne dañoo am problème ci seen biir kër ñuy sëy te amuñu fa jàmm ñii di tibbantey tànk ak ñii di tamanteek def yëf walla kër goo xam ne dañoo réeroo kenn bëggut a gis sa morom bu ñëwee danañ leen jaarale ci si wa'tasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu jooju ba nga xam ne kër gi dinañ nekk ci jàmm loolu la mag ñi daan wooyee jàmmi kër kër goo xam ne amul jàmm danga daan gis mag mu am ñeenti soxna mbaa mbaa lu ko ëpp am fukki doom nangam ci benn ëtt bi te kenn du jël jël bant sax dóor sa morom loolu ay secret la woon te mu ngi fi ba tey. li waral mooy da ngay siiwtu amoo kaaraange kaaraange nag ni nit ñi mel ci alal noonu la mel kii da ngay gis mu am 4 milliards kii ay million kii ay junni kii di aar place kese ki nga xam ne ni dafa bari xaalis wala dañ koy tudd kaaraange boppam dafa am yu gën a foor am na kaaraange yoo xam ne ñu ngi koy liggéey ci ay eh, mbaam yi ñuy takk sareet sax. dinañ ci liggéey kaaraange dinañ ci dindi rab dinañ ci ubbil nit ki wërsëgam ba mu yaatu lool lu am la ndax xam nga mala mala boobu toujours ma di ko wax ñaare mala la boo xam ne ñu baree bari dañoo defe ne sëf ko ay bagage képp moo ko tax a jóg te déedéet am na secret yu bari yum làmbool yoo xam ne bu ko ñu bari xamoon ku ko def ñàkk dana jeex ci yow ci lu wér te du ak njabar de lu wér la du du ak njabar ndax boo nee mbaam ne asraar ñu ne ah kon est-ce que du ak njabar waaye déedéet mbaam mi yàllaa ko bind kenn saxalu ko jëmbatuñ ko muy sax bàkkan la yor di nooy eh, yor ay secret yàlla def ci ay mbóotam comme ni mu ko defee ci xar yeeg bi kon képp koo xam ne daal am nga problème mu boobu ci wàllu kaaraange dañ ko ciy defar am na am na mën naa doon ndomba mën naa doon lu ñuy sangoo mën naa doon lu ñuy takk waaw yooyu daal mi ngi fi daal ci lu wér loo xam ne nag lii ñu koy waxee nii ñoo ngi jàkkaarloog dëgg gi muy lu wér peng. mala yooyu nga wax noonu sax ba ci mel ni ki ci yonent yi amoon nañu ko ci amoon baax la yonent bi amoon na ko te sorewuñu ci mel lu mel ni mala yi tamit di jëfandikoo ci mala yi ak seen diggante nit ñi loolu tamit dafa mel ni xam-xam nangu na ko. waaw lu wér la ndax boo boo gisee ñu koy def sax ñun buñ ko liggéey itam tekkiwul ne dañ koy rey déedéet kenn du ko rey kenn du ko rey kenn du ko def nen kenn du ko torturer kenn du ko gaañ daal dañuy jël rek liggéey liñ ciy liggéey sang ko ci jox ko ci mu naan ñu daq benn mu dem penk benn sow gànnaar saalum ñeenti la yooyu foofu sa wërsëg nekk di nga ci jot te dina ànd ak kaaraange boo xam ne kenn du la mën a yàqal loolu wér la fii moom la sëñ lu waxoon rek lañ wax ne moo ko waxoon ndax wóoruma diw moo fi dégg am na lu muy diwoo waaw wóoruma ndax moo ko waxoon ne waaye siw na waaw waaye daana dégg sëñ Babacar si ñu wax ne wax na ne ku bañ xarfa xuufa xarfa xuufa la fuuf kon <laughs> yooyu lu wér la xam nga nag léegi boo gisee mbir yi compliqué mooy ñi ci rax te bokkuñ ci waaw waaye nag euh, euh, def naka dul noonu moom foo dem fekk ko fi secteur boo dem fekk ko ci boo demee ci chauffeur yi da ngay gis chauffeur boo xam ne mënta dawal tamit mi ngi ak permis dem ci tailleur yi gis tailleur boo xam ne mënta ñaw tam mi ngi mu ak place dem ci sëriñ si gis koo xam ne amul jàngul dara mënta bind sax turam te nee na sëriñ la waaye nag loolu lépp moom ñun ñu ngi ciy seddaloo yàlla man duma jàmb di jox kenn damay bind jox la nga xoolal sa bopp dinaa li nga mën a gis ak sa bët dinaa ko bind jox la nga xool xam ne lii ki ko bind ku jàng la ku xam li muy def la ba pare la ca biir secret ba nag ma téyel ko sama bopp ndax ñaan ñaari façon la da ngay jox nit ki mu sangu mbaa mu takk mbaa mu naan la ca des nag nga wérdu ko ci turu suñ borom waaw kooku mooy kale bi nit mën nga koo ñaanal waaye nit ñi fii senegal boo joxe boo nee nit maa ngi lay ñaanal noonu rek waaw danaan ah, sëñ bi de man joxuma dara ak li ma ko jox waaye nag euh, boo yëkkatee mbind mi dalal waaye nag xale bi déclenché ay mbiram nag mi ngi ci yow <laughs> waaw. wax nga ko maanaam dafa am yoo xam ne ay junju la ak ay fee waaye nag la nga xam ne mooy secret bi dëgg looloo tax ñu naan lasraar waaw euh, kon ba tey ñu wax ne ñu ci wàllu. damay gis ñoo xam ne dañuy am alal lool waaye njaboot te leen te it ku am alal te ba ba fi njaboot it daanaka booy wane a alal di saaw. waaw loolu itam xam nga euh, ñëw ndax doom tamit euh, mën nañoo wax ne yàlla moo koy joxe ci lu wér waaye nag am na tawat yoo xam ne mooy tee nit ki am doom waaw tawat yi nga xam ne mooy tere nit ki am doom moom euh, ñun ku ñëw ci ñun tawat loolu dañ lay laaj ndax dem nga hôpital. comme ñun yàlla joxuñu machine bu ñu mën a diagnostiquer ci wàllu googu dañ lay digal ndax dem nga hôpital boo demee hôpital ndax am na ñuy bañ a am doom ñoo xam ne seen seen seeni walax njaan yi moo matul moo moo doyul te loolu tubaab bi moom amagul lu ko lu ko remplacer garabu tubaab moom ñëwagu ci moom. te nag ñun am nañu benn garab boo xam ne lakkat yi ñu ngi koy wooyee mankalintaan lañu koy wooyee ñoom. bu ma ko waxoon tur wi sax boo jëlee xar mu góor mu mag eh, ñaari kiyam yooyu moom moom la ñuy wooyee garab bi ci wolof <laughs> waaw waaye nag ñun yemuñ ci garab bi dañ koy booleeg innal xuwata lillahi jamian ak sadidul xawiyul matin dégg nga am na benn xaatim bu muy àndal nag boo xam ne mooy secret bi ndax fi la ñuy jël turu nit ki ak turu yaayam dugal ko ci moom mi feebar bu ko utiliser diir bu gàtt rek loolu moom liñ ci faj ci ay nit ñu am njaboot moom yàlla xam na ne kenn xamul nu toll <laughs> euh, kon daanaka mën nañoo wax ne daal secret yëpp ngi ci alxuraan waaw. maanaam suñu borom bàyyiwul dara bàyyiwul dara ci téere bi voilà looloo taxoon ma doon ma doon ma doon dellusiwaat ci ñu ñu gën a préciser dafa am ñaari yoon mooy nuuraaniya ak zulmaaniya nuuraaniya mooy bii nga yore di ci jëf di koy liggéey ci alquran zulmaaniya nag mooy bi nga xam ne ni xërëm la waaw kon ba tey ci ñu dellusiwaat ci ñi nga xam ne dañoo nekk bitim réew waaye it eh, daanaka jëflanteeg waa réew ma jafe leen lool ndax mel na ni eh, loolu yëpp ci xeetu kumute la wala ci xeetu ñàkk ubbiku la eh, bunt bu ñu fëgg mu mu jafe liggéey jafe leen buñ dee jaay sax ñu ramas njaay maak yu mu loolu it ndax am nga ci pexe. waaw am nañ ci pexe bu baax ndax euh, li ñu wax léegi rek ci maa fii fi kitaabi min shay'in yàlla nee na fàttewuma dara ci téere bi fàttewuma dara nag moom ku ko wax moom ku toll ni yàlla bu nee fàttewuma rek kon loo loo sa xel dajak lu mu dajul lépp mu ngi ci biir yow nag yaay xóotal sa xam-xam sori ci biir téere bi wala nga woyafal sa xam-xam bañ cee sori waaye ki nga xam ne nag daane ci am réew te amul fa jàmm maanaam waa réew ma bëgguñu ko wala mënu faa lijjanti dara lu sotti ñett yi ma wax rek ñoo ko mën a waral wala ñeent benn réew ma ci boppam moo dul réewam ndax am na woykat bu ko fi woyoon bul bëggati ab dëkk ba loolu <laughs> waaw loolu boo gisee ñuy wax jëm ca mooy dafa dafa mel ni dafa laalaale tomb boo xam ne jàngoon nañ ko ndax nit ki balaa muy jóg jëm cib dëkk war naa def diagnostic xool ba xam dëkk bi mu jëm moom dëkkam la wala déet léegi nag ñu bari dañuy jiital seenu bëgg rek dangay gis koo xam ne day tukki fukki at du mën a am sax terrain bu moomal boppam gis koo xam ne day tukki 6 mois la fay am am kayit am xaalis ñu naan day jaay mu fekk ne déedéet jaayul dara dëkk ba mooy dëkkam waaw léegi loolu nag bu loolu amee ba pare nag bu fekkee xool nga dëkk ba muy sa dëkk ba pare te mënuloo fa am jàmm kon nag ñàtti mbir moo la muy cat moo la jàpp mbaa rab jàpp la mbaa ñu liggéey la ñett yooyu nag moom amut buñ ci mënta dindi ci kàttanu seen borom. Hmm. léegi kon man gis naa ne kon jaadu na ci képp koo xam ne yaa ngi seetaan vidéo bi bu la lu mel ni dalee mu ko ak yow consulter la ngir la jàngoro jooju mën a faju yaakaar naa. waaw xam nga léegi nit ñi li ma waxoon ci njëlbeen gi rek ñu ci bari dañoo décroché ci sëriñ te sëriñ ma nga fam ne woon ba tey. ndax sëriñ boo xam ne nit moom loo ko xam-xam sax mu gën a xam boppam am na ñoo xam ne lu jamono metti metti metti metti lu jamono nëx nëx nëx seen ngor ak seen diine ak seen gëm seen digg ak seen borom kenn mënul leen kenn mënu koo saax-saaxee ñu ngi sant yàlla nag ñun ci ñooñu la ñu bokk lépp loo xamante ne bii ñu ngi koy wax ak nit fekk na loolu luñ teg suñ tànk la ba noppi ndax néew na ñun ñu sant néew na nga gis kuñ sant dara mu ne mënuma ko man loolu damay dal nit damay sant dara donte loola jàng naa ko sax waaye xam naa ne dëppoo wut eh, diine ci day dal ca zulmaani yu ba ma ne ko loolu man bokkul ci sama liggéey waaw lu mel ni bokkul taqali ab diggante sax am na fu muy dagane ci wàllu asraar bu yenn loolu lu xóot la <laughs> waaw am na fu muy dagane foo xam ne benn bakkaar du ca am waaye nag du du dañ la ko war a wax rek nga daal di koy def war ngaa gëstu ci ki la ko wax war ngaa gëstu ci li nga jàngit waaw ndax euh, euh, du du ñun seet bi ñuy seet dañuy xam xëy bu déedéet xamuñu xay bu de du xëy bu ndax loolu moom yàlla sax xamalu ko woon yonent bi <laughs> kon nag ñun waaye nag luñ jàng la am jàng la ndax tey jii benn sëriñ bu mag boo xam ne euh, fii ci Sénégal la dëkkoon jërut may tudd turam daana xool jigéen ju toll diggante mu ne ko góor ngay ëmb góor nga ëmb walla jigéen ta ci xel mun nu joom la jàngoon du woon baatin de xilmu nujoom la manoon lool daana nit daana ñëw wax ko ban eh, li mu ëmb comme noonu rek xam nga loolu lu yéeme la te pourtant da koo jàng de ndax toogoon na ma moom mu xam ne xam-xam bi mi ngi ko jànge woon ci Abdul Fatah Tuuxi yu benn benn benn benn eh, borom xam-xam bu mag bu dëkkoon Isip moo ko daan jàngale xel mu ram lu boobu ku ko jàngal ku ne wala ku ko xam ku ko xam ku ko ku ko jàngal jàngal la ko ku ci garaaw ngay doon te ñun fu ci moom lañ ko jëlee ndeysaan yàlla wàcc na yàlla na ko yàlla yaram te jéggal ko ay bakkaaram te tabbal ko si waaw loolu lu wér la. xam nga li tax li ngay wax nii euh, lu lu xam tuuti ci lasraar mu yi ngay wax rek dina xam ne ni yow maîtriser nga li ngay wax waaw euh, léegi gis nañ bitim réew tamit yeneen jafe-jafe yu fay am da gis koo xam ne dafay am soxna su muy lab soo xam ne. buntam la ci pour mu mën a mu mën a mu mën a kii buntam la ndax bëgg na ko ñaareel bi tamit bés bu ko takkoon it mën a am ay këyitam ak yu nuy mel loolu tamit eh, ndax pexe am na ci. waaw pexe am na ci ndax pexe mi mooy rek dañuy fexe ba say bunt ubbeeku rek waaw nit moom bu ubbeekoo rek lépp yomb ko bu tëjoo nag lépp jafe ko waaw moo tax comme ci mën a doon rek dañuy fexe ba say bunt ubbeeku. ñaare sax nit damay wax loolu man diw dama bëgg a takk as ndaw ma ne ko ñun duñ la wiise ci nga takk ji diw sàngam dañ lay defaral loo xam ne say bunt ne ubbeeku moo xam nga jot ci ndaw si moo xam nga ñàkk cee jot waaye say mbir ubbeeku daal ndax euh, wërsëg deesu ko takk ci benn jëmm wërsëg yàlla yi dafa dafa dafa yaatu boo takkee ne ndaw siikat bu ma ko jotee rek sama mbir baax boo ko ñàkkee kon xanaa sa mbir du baax moo tax dañ lay defaral loo xam ne ci alxuraan loo xam ne say mbir dana ubbeeku te alxuraan nag benn secret daf ci ne wala sax ay secret fi mu wuutee ak xam-xam bu ñuul moom bu la mayee lim lay may may ga day sax yàlla du mayee di nangu loolu moom bu fekkee da laa may du ko nangu de xanaa bu la dénkee <laughs> bu la dénkee dama mën na koo jël waaye bu fekkee da laa may nag may gu may sax ba faaw bu fekkee nag da dénk ma mën naa am bis mu ñëw mu nangu lam la dénkoon. bu dee xam-xam bu ñuul nag boo ci jëfandikoo ñetti fan ñeent mën na laa may la nga doon sàkku waaye juróomeelu fan ba rek mën na la koo xañ ba xañaale la la fa la mu fa fekkoon moo tax mu jara moytu bu baax a baax a baax. Sëñ Abdou Gueye dina nekk Touba jànnatul euh, firdawsi dina nekk itam Dakar Parcelles Assainies unité 6 ca dépôt gaz ba loolu ñaari barab yooyu rek la ñuy nekk. bu ñu nekkee fii ay ab diir nekk fee waaw ginnaaw loolu it boo wootee ci téléphone yi am nañ ay CP yoo xam ne ñooy dem biti réew bu dee ñi nga xam ne dañoo ne biti réew am nañ ay CP yoo xam ne ñoo leen di yot seen ñaan bañ jot ci te duñ ci sonn waaw fu waaye mën a nekk ci àdduna daal te yittewoo suñu ñaan boo amee adresse wala ku la ko jël sil mën ngaa jot sa ñaan te doo déplacé ndax ñi ñuy ñaanal ëpp na ay ay niti nit nit du ma du ma du ma du ma wax lim bi ndax xaw ma nu mu toll ñoo xam ne mësuñu noo gis te ñu ngi jot suñu ñaan di sant bu baax wala boog bu ñu gisee ci vidéo yi lañ ñu gis waaye suñ jëmm mosuñoo toog ak ñoom te ñu ngi jot seen ñaan bu baax te ñu ngi sant yàlla. ci wàllu consultation bi léeg-léeg ci am ñoo xam ne ñu bëgg sutur ñu am sutur bëgguñu seen biir feeñ loolu ndax jël nga matuwaay yi nga mën a jël pour kii leen. waaw foo nekk ci àddina rek buñ déggoo ci ca seet ga <laughs> mën nañ laa seetal te doo déplacé wu loolu moom mu ngi fi bu wér. ndax <laughs> ndax message téléphone tey boo ko envoyé ku ne bitim réew da koy jot noonu la demee rek ñun tam mën nañ laa seetal seet bu leer boo xam ne doo ci am looy sikki sàkka te it lay doon incha allah xam nga ku ku kenn ku ne la nga fanaanoo xam nga ko bu la ko waxee te laajoo ko <laughs> di lii dëgg la. agsi nañu fi nga xam ne ni fi la ñuy yëkkatee jataay bi lu def nga daal di wax sa kàddu yu mujj. kàddu yu mujj yi mooy sant yàlla santati Serigne Touba bu wér mi nga xam ne moo nu def nii. Ah, seriñ Touba ñu ngi koy sant bu wér wér wér wér di ñaanal ñëpp jàmm nag di ñaan mboole di ñaanal Serigne Touba Cheikh Mouhamadul Mountakha suñu borom mooy ko fan wu gudd ba mu yeggale ay naalam ci darajay lislaam tan ànd ak moom di ñaanal it sunu uh, jëwrin sunu xarit sunu soppe bopp Cheikh Mouhamadul Basir moom Serigne Abdul Xaadar suñu borom may ko fan wu gudd wànd ak wér ba mu yeggale ay naalam di leen sant yéen tamit ci nii ngeen def yéen waa Touba Argentine TV yàlla yàlla yokk seen télévision bi ba def ko ay télévision yi télévision te ay li fiy jóge lépp doon ay njariñ yàlla nañu seriñ bi boole taxaw taxaw saayir ak goog baatin yàlla na ñëpp am jàmm bi jaahi seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam jërëjëfati sëriñ Touba. jërëjëf mbokk yi mu nekkoon seen euh, émission euh, ñu ñëwoon fii tey kër sëriñ Abdou Guèye Ridial bii di ñetteelu jataayam waaye gis nañ ne daal li muy wax teg na ko ci xam-xam ndax képp ku jàng lasraar tuuti rek moo yi muy wax ne xam nga ne ko xóot ci lasraar moo koy mën a xam koo xam ne ni yàgg naa jëflanteek mag ñi gis nga ne mag ñi daanañu am ay ay ay baat yu ñu daan wax yoo xam ne ni des na fi moom kon xam-xam làquwul nit a fa àggul xalaqal insaan wa allamahul bayaan alquran a ko wax lépp loo xam ne doomu aadama bi jotu ko ci xam-xam rek ak càgganteem la waaye bu ci defee farlu rek mën na caa àgg asalaamaaleykum wa